acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delloowaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaan teg mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xamee ne dama laa dalal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax ba ñi nga xam ne dañuy topp saa su nekk mëntee jëlee njëriñ lu taw féexe aca tey nag dalal naa leen benn gan boo xam nii damay nam ñu wesaare lépp loo xam ne ni xam-xam na rek yaa yaatal ci bu baax a baax kooku mooy Serigne Modou Guèye Diwane Sylla te nag nee naa leen ku déglu rek di nga dégg xam-xam waaye ku déglu it di nga fi dégg actualité révélation yu am solo aja kilifa gi laata may def dara dugg sama biir programme li war a waxtaanee damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bisimilah. bisimilah mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daaliin amin taxasamtu bi isni shuradiqi ahamun waliyu xaykaya wa taxalatu bi sayfi xishati shaqakun sami wa talmasalaya wa tadraxtu bi duraxi wiqayati alawun xaq xulakoloya wa daxaltu fi kan fi kifayati yesun kuntalkaya min charri kulli insin wa jinnin wa seytaanin maridin maa ngi nuyu bu baax Serigne Cheikh nuyu xalifa général de Mouride di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér di nuyu sama sëriñ sama yaakaari tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Kara Sylla di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér di nuyu askanu Sénégal wépp nag di ñaan jàmm am fi ak xéewal jërëjëf sëriñ Modou Guèye Diwane Sylla ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw euh, seen yooyu seet yooyu tànn rek dal ñu ci kontaan bu baax dinaan la dalal jaam aja ñu fa séene nag waxtaan ci xam-xam yaatal ci bu baax a baax bëgg naa ñu waxtaan la toll ci juróom-ñetti ponk waaye juróom-ñetti ponk yooyu damaa bëgg ñu xaaj ko ñaari pàcc ci ñaan bi nga xam ne suñu borom dénk na la ci xam-xam bu ba yaa ngi ciy def résultat yu am solo waaye fa jógee damaa bëgg ñu dellusiwaat ci pàcc bi nga xam ne gars yi ñu ngi koy waxtaanee fu nekk ndax yaa ngi ciy def ay résultat aja fi may tàmbalee tey euh, bokk na ci xew-xewu jamono mu di actualité gis ku ne gis na réew mi li fi xew fan yi yëpp Eh, tëj tijji bi tëj nit ñi rey gis ngeen ko taal yi kër yeeg oto dëkk bi fi mu ne ni metti na coowal indi président Ousmane Sonko Adji Sarr état bi nguur gi coow li ba ci Macky Sall coow li fi mu ne nii bëri na lan nga ñu mën a wax ci kuje lànk politique bi. waaw wàllu li may dégg damay dégg nag ndaxte man dama nekk koo xam ne mbir mu nekk su ma ko déggee rek dama cay su fekkee dégg-dégg rek laa ci am teguma ci bët damay dama ci yem ci dégg-dégg rek waaye daal ci ni may gisee daal nga xam ne maa ngi koy gisee ci diggante Adji Sarr Ousmane Sonko Macky Sall <coughs> ah ni may gisee mooy aw askan day bu fekkee danga leen waxoon mbir moo xam ne leerutoon ci seen nopp ñu génn di xeex mu dem ba leer ci ñoom walla li ci ëpp leer ci ñoom. Macky Sall daal mi nga xam ne moom mooy président moom moo war a def jàmm yootu jàmm te xam ne jàmmal ko moo tax mu egsi fii mu egsi tey waaw loolu daal am na solo lool ndaxte réew mi toll ñiy xeex ci mbedd mi Macky am na doom yu toll ni ñoom am na jarbaat yu toll ni ñoom am nañ mbokk daal yoo xam ne ndax police yi ñuy teg ci mbedd yeeg ñëpp ndeysaan dama leen di romb sax léegi dama leen romb ne dama leen di yërëm ndeysaan ndax dañu sonn lool waaye nag yàlla na ko yàlla jeexal daal ci nu gën a gaawe daraja Seydina Muhammad luy xew waaw xam nga mbir moom la cay xew gerte laaj ndax du baatin nag laay waxe saayir lay waxe la cay xew moom mi ngi xew ndaxte heure su yëngatu amee rek di nga dégg koñ ne la deena wala koñ ne la na gaañu yu metti ndax kum dul yow di sa mbokk wala di sa xarit boo xam ne dana xam ka gaañu wala nga xam yow ka gaañu kon daanaka jëru ko dara àdduna jëru ko li problème li nga xam ne daal moo am solo mooy nañu àtte dossier bi ku nekk féete fi nga war a jàmm am ak salaam jàmm may jàmm nit ñi nit ñi ci jàmm ak mi dox ku nekk ne ci sa jàmm salaam ndax jàmm moo gën lu dul ah. li nga xam ne moom la ñëpp euh, bëgg am lu leer mu doon loo xam ne ni euh, dinañ mën a xam fu ñuy féete mu di président Ousmane Sonko ndax am nga yaakaar ni kii nii dina mën a tee bokk ci élection yi. waaw rafet naa njort ne Ousmane Sonko rafet naa mu baatin rafet naa njort ci ne dina bokk ci élection yi ndax am réew askan wa ñooy fal nit te ëpp ci askan wi jox nañ ko bopp kon dama rafet ci njort ci moom ni kuy dem lay nekk su doon xam naa ci baatin nag moom du baatin moom du ma ko waxee ci média ndax man baatin dama ko def ni samay butit pour ma wax ci maanaam lu fees lu nit ñi gis yombul waaw jëf daal ñuy gis daal la ëpp lu may def waa wax waaw. gis nga nguuru président Ousmane Sonko kii nguuru président Macky Sall fu mu jeexe waaw normalement bu dee norme yi nga xam na moo tënk moo tënk réew mi nguur jeex na waaw foofu laay basew nee naa la dara lu jëm ci wàllu baatin côté boobu moom du ma ci wax. mënta ne loolu loolu mën na ko jéem a def mais nekkul loo xam ne lu mën a ne la waaw du ci jëlee benn ndam waaw. jërëjëf jërëjëf sëñ Modou diwaan si la jërëjëf ci leeral yu am solo yi atia dañuy dox ba léegi wéyal nee naa leen su ngeen demee ba soxla ko nag du doon ko naqaree jot ndax mu ngi nekk almadi dinaa leen euh, baaxee pour ngeen di bàyyi xel barre d'écran bi ndax numéro bi foofu lay nekk di daw atia dama ñëw ci féewale yi nga xam ne am na ci place yi liggéeykaay am na ci njoboot yi suñu njaboot ci diggante nit ñuy dencante waru sëy ba ci doom yi nga xam ne da nga leen jur dañuy féewaloo loolu ku la seet woon nan nga mën a def ba fexe boole leen ñu doon benn ñaanal ko ci. waaw xam nga yow tey première fois ma ñëw ci sa ci sa site avant ma ñëw ci sa site yaakaar naa bari na lu bari dinañ ko weccante ci téléphone man a yow bari na loo xam ne xam nga ko ci man loo xam ne xam nga ko ci man te maa ngi doog a ñëw tey première fois deux cent vingt et un people man nag li ma ñor leen dong la mooy am na lu ma yàlla dénk li ma yàlla dénkit mënuma ci lenn lenn lu may def ci lu baax dimbale ci doomu aadama yi loolu kese laa ci man hmm? def lu baax kese laa man ci xam-xam bi ma yor mënu ma ciy def leneen gis naa ne fi jamono toll nit ñi sonn nañ ndax fi ne jamono dafa metti waaw kon ku yor lu mën a njariñ nit ñi da leen di dimbale waaw dëddale ak féewale ak taqale ay nit loolu bari na boole loolu moom duy dara loolu mooy li gën a yomb ci xam-xam. moom dafa yomb lool noob noot tasxiir yooyu dafa yomb waaw xam nga journaliste amul droit jël benn risque ci comme fi surtout fi jamono toll waaye am na loo xam ne xam nga ko bu baax dégg nga ko waaw. mën naa njoboot bu féewale comme ni ma ko waxee wala ñoo xamante ni dañuy sëytoon neexawuñu bokk bëgg ñu boole leen su ñëwee rek di nga leen nopp ba. Euh, soo xamee daal nit jox na ma nit ni ma dama bëgg suñ diggante mel ni soo ak suukar bu yàggee ba yàgg ñetti fan la ñetti fan laay nopp moom ñetti fan du ko weesu dëgg yàlla bu fekkee dëgg rek la yàlla bëgg. ñi may defal ñëpp du weesu ñetti fan waaw. atia kon euh, dégg ngeen fa sëriñ Modou daane daanele lool doon na loo xam ne lu am solo la tu lépp nag ci xam-xam rek la koy wér atia damay ñëw ci ñaar ñeen ñi koy woowee lu ay gisaaneeg yooyu yëpp waaye diggante seet ak listaxaar bëggoon naa xam ndax benn la lan moo leen wutale seen différence. waaw man day listixaar am na fu may toll dëgg-dëgg ci tur yàlla yi may liggéey. lu mu bëgg xam rek bu guddi jotee su ma secret pare rek su ma xëyee dinañ ma ko woon man gu leer nañ bu dee seet nag dama dem jàng ko benn muy ramli nga xam ne am nañu koy jàng ci côté arab man nag maa ngi ko jàng ci pël mu wax gobat góotal seefar daamar amara laxiyaani ba fukki doom yi benn yëpp dal ñëw nga xam ne moom gisaane moom boo ko jàngee dëgg-dëgg te xam ko dëgg-dëgg-dëgg muy tom ramle ah loo ci wax nit rek day mu teg ci bëtam waaw am nañu wutee gu bari ah sax pour la ci sama jàng ci li ma jàngee bu man ci li ma xam waaw waaw listixaar benn da am tur yoo xam ne dangay ngay da koy jàng tëdd ñu wan la ci gént wala ay nelaw man loolu laa xam ci listixaar waaye seet nag mën na ma jël léegi suuf tomb tomb tomb wax la loo xam ne dara du ko dindi mën na ma jël kayit léegi tomb wax la loo xam ne dara du ko dindi mais nag pas listixaar bu fekkee nag da yor turu yàlla di liggéey di ko liggéey di ko liggéey nit du judd rek am ay rawaan nit day liggéey turu yàlla turu yàlla woo mooy am ay rawaan. rawaan yi ñoo lay jàppale ci ñaan gi ngay ñaan même xaatim bi ngay dagg sax pour noobal nit wala nootal nit sax pour mu gaaw soo amee ay rawaan dina gën a gaaw waaw tur yàlla yi ngay liggéey mën naa am ay xuddaam ak rawaan yoo xam ne ñoo lay jàppale ci bépp mbir boo xam ne dox nga jëm ci waaw. bi nga judduwaale. waaw bu bokkut ak bu bokkut ak rawaan bi nga xam ne da koy judduwaale. jërëjëf am na solo acce ñu dox ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk laaj bi mu bëgg a laaj nag sama mbokki ndawee ni ak ñu sant jàll moo tax ma koy laajte ndax yow ñu ngi la ciy bàkk mu ñi nga xam ne dañoo bëgg am xaas bu gaaw rawatina jëmu ji ñu toll ne di jubat si waaw xaalis bari na ay façon ci yooyu bu ko nit mën naa ubbi ko ci wàllu wërsëg ndax boo ubbi ko rek lépp luy jariñ ci àdduna dana la wut si xam nga ubbi du xaalis doo ngay ñëw ndax xaalis nit ñu doyoon ko dara lu may matériel rek defar sa àdduna waaye boo xasee ubbi ko du xaalis doo ngay ñëw léppay ñëw ubbi nag bari nay façon bari na façon yu bari am na yoo xam ne mën na nekk ci wàllu kurus am yoo xam ne mën na nekk mbind am yoo xam ne mën na nekk sunguf bari nay façon dal Euh, nee naa leen kooku mooy sëriñ Serigne Modou diwaan si la nekk ci Almadies numéro mi nag ku ko soxla mu ngi noon ci baaru suufu baar d'écran bi affiché leer nañ soo ko contacté rek dina jëflanteek yow ba soxol seet bi guy atia kooku suñu borom baaxee la ci mbiram xam-xam diggante faj ak ñaan damay jàll ci beneen pong mu bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi ci néeg sëy waaye neexul de rawatina ndaw ñi pour ñu def ñetti minutes yu mat ci kaw lal sax problème la wallu kattan loolu am na fi ay façon yu bari man nag du ma joxe sunguf bu ñu la xoolee daal ba xam ne danga nga am feebar ci wàllu néew kattan am na yoo xam ne buñ ñu la ko liggéeyee la ñetti xeeti yàpp yu bokk nga koy booleel ñetti yàpp yoo xam ne bokkuñu bay nag xar moom ngay booleeg liñ lay jox nga togg ko lekk su ànd ak dogalu yàlla. di nga am kattan gu wér kéng de goo xam ne du la bàyyi ba diini xanaa ah, màggat ñëw nekk dama dem ba nekk mag nga xam ne nekk nga mag ndax doomu aadama yi day àgg foo xam ne bu fa àggee la mënoon ci ndawam dutu ko mënati waaw. na solo jërëjëf euh, ñu jàll ci beneen ponk yaatal bu baax a baax koo xam ne dafa dem euh, bëgg mu dellusiwaat ndax bëri na ñoo xam ne ñoo jékki-jékki ni mbër nit ñi wër nañ fu nekk lu ne def nañ ko bëgg mu dellusiwaat te yow mii maa ngi la dégg nit ñi di la koy jëwee lool moom suñu borom da la cee may sirru bu solo. waaw loolu ñu ngi koy wax wooj tey nit bu demee tey bu fekkee am nga dàllam mën nga ci def loo xam ne dina ñawaat dàll boobu it ci la nit ñi def loo xam ne ci la nit koy demee des na ci def lu nit ki ñëwee des na ci def lu nit kiy demee moom la ñuy wax wooj waaw xam-xam nag première bi njëkk ci xam-xam moom mooy boo gisal tax xam-xam jafe léegi mooy ragal yàlla moo bareetul yonent bi dañ ko laajoon mu ne sama askan alku na ndax jamono ngi ñëw sama askan duñ jubloo dara lu wut alal mu ne wut alal joogi nag lu mu leen di jural mu ne ñeme yàlla gisee looloo bari léegi ci àdduna bi xam nga yow man maa ngi doog tal sama première deux cent vingt et un people sama ñaari émission yi ma def yëpp ci Cheikh Taarif laa ko def benn nit bu masaw bu mu masaw woo di wax ci man lu doye di wala nga koy wax ci Cheikh Taarif amul te it fii kenn du ko fa wax. du gënal dañ sonal sëñ sëpp noonu la ñu xel di doxe waaw ñëpp nag mënuñoo bokk mel noonu ndax adduna yàlla mu bind addunaam bind ñi ñu normal bind ñi normalu am na ñoo xam ne du seen ñàkk normal xaj na yàlla leen nattoo loolu waaw ndax xam nga xam-xam dafa jafe ñu nee naa la ñaan du da yor ay kayit rek ne da ngay ñaan faam lu ne ci biir loo xam ne. faaw nga xam loolu pour mën a def mën a def lu bari lu nit ñi gis ñaan daal mbirum suñu borom la waaw mbir la moo xam ne faaw nga ñett ñaar nag moo am taqoog yàlla wala nga taqoog saytaane yàlla nañu yàlla musal ci taqoog saytaane nag te nag taqoog yàlla waaw. damay ñëw ci rab sëriñ bu ma dalal dinañ ci waxtaan waaye du doon dara ma ne seen sëriñ sonoon ngeen rab de waaye rab yan gàllankoor la mën a yóbbu nit ki ba tar del ko ci àddaam. waa rab bu nekkee ci yow. ci liñ ñu jàngal ak liñ ñu xamal mooy mën na la defal loo yootu doo ca jot ba ci sëy bii ngay wax nii sax léegi nga xam ne nit ñaa ngi koy saytu duñ yegg seen bopp wala buñ demee ci kaw lal rek seen kattan dem rab dana ko def encore rabit dina def nit feebaru yaram feebar yoo xam ne wala nga comme nga am tey benn feebar bu ndaw bu ca yaram boo xam ne danañ mën ne lii moo la dal mais rab da cee làqatu bu ca man nga dem ci ku ne ku aay ku ne su xamul dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la làqatu ci biir feebar ba pour nga wér dana jafe lool loolu it day am rab day def loolu waaw. ban njëriñ la mën a yóbbee nit ki nag nit ki ci boppam ban njëriñ la ko rab amal. waa rab am na ñu muy jariñ jàppal na ni muy yàq ci nit noonu la amee ñu muy jariñ ci kaw nag la ngeen di weccaxante weccaxante yéen ñaar ndax yenn saa nga gis ñoo xam ne rab lañu yor waaye lu ne lañ cee mën a def ci àdduna waaw lu ne lañ cee mën xam nga ñaan ñaar moo am li la yàlla jox ak li ngay yóotu benn yow mi yor turu yàlla di ko wér pour am ca ijaaba wala yow mi yor turu jinne di ko wér ngir jinne ya wuy nga cay faj ak di ca def wala yow mi yor turu rawaan di ca def ñetti yooyu daal moom laa xam waaw man du ma ne dara amut de lu ma xamul lu ma xamul dama naan la xaw ma ko man noonu laay doxee. waaw acca dama ñëw ci ñi nga xam ne dañoo déposé ba sonn pour bëgg lii di liggéey mu jafe leen waaye sama mbokki muudu muudu yeeg faat faatu yi ñen ñi dañoo ñaanlu ba sonn ci mbiram këyit mu doon loo xam ne da jafe mu di visa ndax passeport moom taxut ñuy wax loolu it naa nga jàppale leen ak ñi nga xam ne dañuy def examen concours waaw wàllu visa fii ma nekk ci Sénégal du ma toog semaine boo xam ne ni amuñu bari ñu ci génn le waaye nag loolu lépp du man yàlla la ndax euh, mënuma mënuma ne dama am xam-xam bu kenn amut xam-xam dañ koy jàng rek xam naa daal jàng naa ko ba mu wóor ma ne man am naa xam-xam bu wóor am na loo xam ne sama mbiri bopp la loo xam ne xamal naa ko sama bopp wàllu kayit daal fii ci senegal ak ci bitim réew yàlla mi ngi ñu ciy dimbale ci nit ñu bari ñu leen ciy defal yàlla di ci teg loxoom muy sotti waaw. jërëjëf euh, jërëjëf sëriñ Modou Guèye si la jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu lépp rek ñu wér ko ci xam-xam di yaatal bu baax a baax bëgguñu leen. ngir ñu ñu topp rek mun cee jëlee njëriñ lu taw feexe acca euh, damay ñëw ci mbirum musluwaay ndax da ko laaj jamono toll nii képp koo yaakaar yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel dem leen ngeen wut leen di musluwaay mu di kaaraange bu am solo ndax yow it am na loo xam si ne borom dénkal la ko ñu def si. waaw na fi façon yu bari yoo xam ne boo ànd ak dogalu yàlla boo ko jëfandikoo liggéey lépp loo xam ne lu bon la lu doomu aadamay pexe xamoo ne jinne nit ñee ko garaawal rek mais pexe doomu aadama moo gën a bon pexe jinne jinne ne jinne du dara nit a gën a ñàng nit a gën a garaaw gën a bari dansé waaw jinne jër ndamoo sëñ bi jinne du dara ah damay bañ ku tontu wala dara waaye man man sëñ mu de ma namoo jinne wax jinne du dara jàppee ma ko it muy dara fexe ba daal boo nee allahuma daal su allahuma ja rek yàlla wuyu la ci daal moo gën waaw nag amut benn marchandise buy maye li mu yor lépp da koy jaay. waaw kaaraange bari na fi ay façon am na fi yoo xam ne buñ la ko liggéeyalee boole ko yam war a àndal bopp ñàngoor extra extra yi war a àndal yëpp nga jëfandikoo ko ci àdduna moom bu ànd ak dogal yàlla kenn mënut ci yow dara. jërëjëf am na solo atia dama naan ci lan ngay tàggatoo lan ngay baaxee ñi nga xam ne ñu ngi lay topp ci 221 people loo leen di may tàggatoo ci. waaw fii nga xam ne fi la jamono toll nga xam ne adduna bi dafa metti ah damay may nit ñi ñu gën a góorgóorlu te gën a jaamu yàlla. te di sàkku ay ñaan di sàkk ay sarax di maytu lépp loo xam ne luy tardeel doomu aadama la te bu dee ndaw nga yit nga maytu jot ndax boo amee jot boo amee jot doo mas jot kenn te ku jóg jot la ndaw lool rek lay maytu maytu jot soo amee jot daal ku jóg dina la jot te doo mas jot kenn ndaw moom lool nga war a njëkk a maytu waaw ginnaaw bu loolu jàll it tabaski gi nga xam ne mi ngi jub su képp koo xam ne man nga ko Faatixatul Kitaab juróom-ñaari aaya la aaya boo def def yaa latif déet yaa waliw yaa latif cinq boo demee ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da nga yem foofu nga def yaa waliyu yaa latif cinq àggale saar wi tàmbalewaat ca faatiya soo agsiwaatee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga def yaa waliyu yaa latif soixante-dix àggale saar wi soo paree nga defaat faatiya ba foofu ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga def yaa wàllu yaa latifu cent nga àggale saar wi soo paree nga jàng fàttee juróom-ñaari yoon isa jaa nasrullahi juróom-ñaari yoon ah soo ko defee day néew ma doom lu ne gàññ de waaye di nga sant doo de fenn di lebi ji wala ngay wuti dépasse loolu maa ko joxe secret dépasse la ñi ngi ñaan daal yal na yàlla defal ñëpp jàmm ñaan ci doorey Seyduna Muhammad yàlla may nit ñi jàmm ak xéewal ak sutura waaw xam-xam nag bari na poñ yoo xam ne duñ ko mën a waxtaane bari na faaye képp koo xam ne woote nga rek wax ñu loo xam ne xam nañ ko dana la ci tontu suñ xamuñ ne la xamuñu